tiro nya mm-hmm. ya lange wa fof bada auzu billahi minash shaitani rajim من ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البحثاء والضراء وحين البحث أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق الله العظيم gis nañ ne dañ wax ne gëmuñ woon ne bés fi nga dina taxaw moo tax bi duñ daan moo tax yàlla ne matawut pour nga jublu sow janta wala penku di jaamu sa te nekkul ne danga góom yàlla ak góom bés penca góom malayka yi mhm. gisa as soo góomee sax malayka yi mhm. nga xam ne wa inna aleykum la hafizin kiraman katibin mhm. yaalamuna ma tafalun malayka yaa ngi ànd ak yow su waxtu julli jotee rek dangay bàyyi li nga def yépp ndax ñu ngi yow danga xat soo ko defut doo am jàmm waaw yàlla ne foog nga góom yii nii yépp bala nga mun a dugga àjjana soo ko gëmulee mhm. moo tax ñu bari du ñooy nangoo julli parce que soo leen waxee ne bés finca mhm. duñ koy duñ ko xalaat sa àdduna bi rek lañu xalaat te rawatina ni ma ko doon waxee sax ma ne jigéen pour mu dugga àjjana lu yomba la mhm. parce que bu ñu déggee waxi yonent ba ma waxee ne jigéen buy julli waxtu yi juróom di or weeri koor di saama cëram yi di toppa ndigali borom këram bu dee borom kër gi nit ku baax la waaw loolu la tamit mu ne jigéen jooju bu génnee àddina dinañ ko ubbil ci àjjana yépp ne jaaral si bunta bu la neex mhm. nga duga mhm. kon ndiki woo mhm. duga àjjana si jigéen moo gën a yomba sax si góor wax dëgg waaye ñun sax ñun ñoo dee gën a bari ay programme di dajale waxtu di dajale waxtu bi nga xam ne yenn saa yi e dangaa gis yenn jigéen ñenn ñi si ñun guddi bu ñoo paree julli dafa fekk ñu soona ba du ñoo mën a taxaw dañuy toog te soo ñëwee si julli yàlla dafa ne yaa ayyuhal lazina amanu rkaw wasjudu waabudu rabbakum mm-hmm. wafalul xayra laallakum tuflihun ne ay yéen nga xamante ne gëm ngeen yàlla mm-hmm. na ngeen rukkoo ka sujud mm-hmm. di jaamu seen borom ndax ngeen di def lu baax ndax ngeen mën a mucca te jigéen suy julli buñ seetee ne même suñu yaay Mariama di yaay yonent yàlla Isa yàlla mm. digaloon na ko mm. Mm. mu juli yaa Mariam uknuti li rabbiki wasjudi warkayi ma arrakiin kooku jigéen la woon soo demee ci aaya suura Ali Imran aaya ñeneen fukka ak ñetta ah. yàlla fa digal suñu yaay Mariama pour muy rukkoo sujud <laughs> di juli di ko jaamu moom yàlla subhanahu Mm-hmm. wa taala mm-hmm. te astu li yëpp mm-hmm. dañ ko war a boole yi tamit ak sàkku xam-xam ñu xam suñu borom ndax taarifuuni qabla an taabuduuni wa in lam taarifuuni fa kayfa taabuduuni yàlla ne foog ngeen xam ma bala ngeen maa jaamu soo leen ma xamulee naka ngeen ma jaamu am na doom adama yu bari yoo xam dañoo rukkoo ka sujud rek fatiha bu correct sax duñ koy mën a wax allahu akbar sax danga dinga allahu akbaru mm. allahu akbaru mm-hmm. you can hamut mm-hmm. mm-hmm. fatiha bu correct mënuñoo tahiya bu ñu rukkoo bu ñu sujur li ñoo wax xamuñu ko sangu janaaba sax ñu bari njàppa sax nekka da problème yu ñu bari nag masha allah dañ dee bugg a julli tey tamit astu ni ñoo wax li jigéen war nañoo bàyyi xel yi tamit ne su ñooy julli julli pillar of islaam bu important mm-hmm. waaye léeg-léeg nga gis ñu bari si ñun ñoo xam ne su ñooy julli ñun jigéen ñi jël musóor bi rek tas ko si boppa bi ni mm-hmm. kawar gi feeñ mm-hmm. ak mèche ba di feeñ gannaaw gi feeñ ñuy rukkooka sujud di selmal ndeysaan jigéen suy julli dafa war a muur cëram yépp jigéen dafa war a am a special uniform pour julli dafa mel ni ki tey am na liggéeyukaay yu bari yoo xam ne dañ am uniform ne sooy ñëw liggéey si uniforme bii nga war a sol kon sooy jaamu sa borom li uh-huh. nga war a sol uniforme la boo xam ne sa uh-huh. cër yëpp a war a muuru uh-huh. moo tax jigéen soo toppoon ndigali sa borom di ànd ak sa kaala gi léegi-léeg nga jigéen ñoo xam ne waxtu julli jot na mu ne astu abal ma sa kaala te astu du mun a génnee kaalaam bi si jamono boobu góor a ngi romba <laughs> pour abal ko jigéen jooju waaye bu dee yaa ngi abal ànd ak sa kaala then you are ever ready jërëjëf xajaa Maymuna ni nga tàmbalee si julli njëriñ yi leer la dégg la julli nekk na benn ci ponki lislaam parce que yaa ngi gis ne sax si alxuraan lu ëpp juróom-ñetti fukki aaya yàlla ñoo ñaax pour ñu julli joxe azaka mu ngi wax ne wa yuqiimu salaata wa yutu zakat si saar yu mel ni Rom Xasas Lukman Ankabut Hajj Ahsaab Taha Hud Nuur bay na ak yu baree bari ni nit ñi dee sàggane julli daal xëj na di xaar parce que yàlla ngi wax si suratul Hud tam ne wa akimi salata tarafayi nahara wa zulafa min al-layli innal hasanati yusibna sayyiati zalika zikra li zakirin suratul nisa tam yàlla ngi wax ne inna salata kanat alal muminina kitaban mawkutan li yëpp mu ngi wone ne yàlla julli daf ko defal ay waxtu te dañ ko war a def niñ ko ni mu ko buggee nim ko santaanee ñi nga xam ne dañoo bàyyi xëj na ba guddi ne xaaral ma dajale leen surtout rawatina suñ mbokki jigéen ñi daal ba guddi ba bala maa tëdda daal jéem leen a fay te fay bi nekkut lu baax loolu laa bëgga nga gën a leeral daal mm-hmm. bañ koo def si waxtu wi di ko dajale mm-hmm. ba guddi wala saa yoo fiilee ne si nga ko war a def daal alhamdulilah <clears throat> am na aaya boo waxoon bi nga door mm-hmm. bi nga waxee ne inna salata tanha anil fashaa'i wal munkar comme juli dafa mhm. daaxa ñaawteef bu mhm. fekke ne juli bu nekk mu ngi fexe di julli waxtu yi juróom mhm. dina li dinañu dimbale dëgg doo gis jullit bu naan sàngara mhm. ndax boo xalaatee ni islaam wax na la ne mhm. bul jege salaat mhm. fekk àndoog sa sago doo laal loolu doo def dara lu ñaam parce que balaa nga pare euh, salaatul euh, euh, zohor asre mu ngee jege si yaa ngee xalaat si xaaral ma dem mbeesal suma njàppa pour ñoo continuer timis jot na gee jot na Euh, gis nga astu alquran si boppam sax mhm. bi ko yàllaay wàcce bismillahi rahmani rahim mhm. mhm. mu ne alif lam mim zalika alkitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin alladina yuminuna bil ghaybi wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun mu ne téere bi mu ngi ni amul benn sikki sàkka dina jubal ñi nga xamante ne dañu ragal yàlla gom li ñu gisut waaye tamit di julli ci waxtu ak di génne si leen yàlla wërsaka <laughs> ala yu bari suura Baqara boo demee aaya ñaar téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar <laughs> yàlla ngi wax foofu inna lazina amanu wa amilu solihat wa aqamu salata wa atawu zakata lahum ajruhum inda rabbihim mhm. fala xawfun alayhim wala hum yahzanun mhm. mu ne ñi nga xam ne mhm. ñu ngi ñu yàlla di def lu baax di julli di génne asaka mu ne ñooñu bu ñu ragal mukk mukk yàlla moo amee seen fey mu ne bu ñu ragal bu tiit mhm. aaya yu bare bare bare suura hajj mi nga xamante ne moom nga wax noonu mhm. yàlla nga ko jeexalee ne wajahidu fillahi haqqa jihaadi huwa jtabaakum wa ma fi ddiini min xaraj في الدين من هرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم نعم النصير لولو موي آية 78 موي last آية بفوف fofu yalla ne nangen strive here accent bakken pul juli daga daga juli uh-huh. na asubo sete suba sa so yewo daga jaka yanginan assalatu khairu minan nawm uh-huh. sule jamano sedala sila ne lo bagena ne uh-huh. ngege na sangu yalla ne nga daga ko eh islam ne jogal nga juli te boo jógee sustu ñun yaay nañ fexe ñu ekkir gi yëpp xale yi yonent bi wax na ne xale bu am juróom ñaari amee solo waxut ne xaleel war naa or ci uh-huh. seven years uh-huh. waxut ne xaleel war naa aji màkka ci seven years uh-huh. waxut ne xaleel war naa génnee asaka waaye dafa ne xaleel seven years na julli waamee fukki at te julliwut yu neen tamit ne dañ ko war a dóor waaw ndax ñu ngi def loolu nag wax dëgg yooyu yooyu bareetut am na jamono boo xamoon ne amoon na mm-hmm. waaye léegi jamono bi am na few compounds yu am waaye mm, bareetut waaw bareetut mm-hmm. ndax astu julli bi mm-hmm. boo gisee léeg-léeg xale yu jigéen yi même jigéen yi jaay si bunti kër yi mbedda bi timis ñii jaay gerte ñii jaay subhanallah dang leen dee xool nga jéem a waxtaan ak ñenn si ñoom ndax ku ci nekk àddina ngaa ut mhm. àddina fii laa des wóor mhm. bu set dama dee fàttali suma bopp ak doom aadama yàlla ne alxaakumu takaasur xataa zurtumul makaabir kalla sawfa taalamun yàlla ne rawante mhm. ci am ami àddina tax na ba doom aadama yu bari fàtte mu ne waa yàkkamtiwuma leen dama leen a xaar ba ñu gane si ma ci seen pax yi baameel yi